ma bokk ci ngeen boole ma ci yëgal ma xam ne ñoom sant itam daayira bu ko muy roq bayaat yi ku jiitu dañ axmat waaye ñuy Cheikh Mamadou Bass mi nga xam ni moo fi teewal Sëriñ Mountakha damaa ñëwoon rek ngir tëbb si ci bis ndax lu sëñ Tuubaa moom ñu tudd ko sëñ Aliou Diouf Lambaye ku ca teew mën ngaa jëriñ man ngaa mucc man ngaa yokk da ngeen ko ne bëgg na ngeen foog na am yàlla ko jàpp ñu teew ñëpp ak ñu dafa bokk ci seen loolu la soog loolu la waaye lam nekkoon mu gis lu ko gën a mu sacrifié boppam jox ko suñu tubaab mu di ko liggéey ba am yàlla dimbal na ko itam na mu gëmee woon suñu tubaab topp ko suñu tubaab noonu la toppoon njaboot suñu tubaab bi jógee sëñ Mourou Moussa la jaayanteel di ko bu jàll sëñ kon itam ñu ngi xañ lu baax di xañ jub daal garab nag na ko saxal moo koy màggal waaye moo koy suxal moo yéen ak taalib rek mooy seen doon loolu ngeen fonk ko xam xam naa dama ubbi sëñ Fall rek ndax moo war a wax dama ko ubbi rek moom yow nag danañ jaay kaw ku ma umbale moom sëñ Fall ko sëñ Sari ko ndax kii ma jur kii ma yar umbale ma leen dara sëñ Ba dama mën a xamal ko dama mën a xamal dama baax jiw ko feebar jiw daa feebar nga ñaan naa ko yàlla perte yàlla na xam bu ko def kon kooku bëgg ko sëñ Sall mi itam daan ko ñëw ci moom ne ko am na gannaaw bu góob ci dëkk waaj a tëkkal waaye bu tëkkalee nag sa responsabilité mun na lan la mun na ko eggal waa yi def yow ko jëlee ko jëlee ko tëj kooku ñu ko tërbiyee ñu ko defoon ne te njàng ta bëlut njàng nag bëlut dëgg la naam waaye nag yar nit ak defar nit daa am lu baaxoo moom la sëñ Tuubaa doon yore magam yëpp kenn wutatu maam yi sëñ bi saara maam ak sëñ daam mu leen defal loolu nag yoon woowu dafa jëkkoon ku bëgg a jëriñu mën nga caa jaar jëriñu kon gannaaw itam yaa ko dëj daal ak dund dara rek jàng arab pour diine jàng jàng jàng tubaab ngir ngir ngir àdduna ku mën a boole adduna ak àllaaxira tabaaraka waaye nag adduna bu ko topp mu yàq sa diine ba mu yàq sa taay te kuy dajale bëggul ak tànn soo dañuy bañ trop am na rek sëñ tubaab bu mag ñu jàngoon tubaab suñ bi jógee bi mu ñëwee sëñ bi ñëwee yére yam sol ci la ko sëñ jàppoon ne njàng toog na ko sëñ bi waaye sëñ bi koo toroxal waaye yére naag yi mu solo ko sëñ bi rek yére naag yi solo ko sëñ bi rek ni ko ñii daa commencé xotti yére sëñ Cheikh dafa doon sëñ Balla bi ni kon arab yi ñooy ñooy lant naret waaye bu yàq din ñoom lañ koy jaar kon ak taalibe moo am solo ak njub moo am solo ak dëgg moo am solo moo waral jotaay bii ñu tëdd su ngeen nekkoon ci la ngeen nekkoon kenn du leen ko tudde waaye la seen maam ne woon seen bàyyi ci ci ngeen nekk kon leen ci bu leen ci jóg wasalaamaaleykum wa rahmatulah